nous dans un campement. Passez nous présente une villa à Boubès. Ici, c'est la villa Ndeye Fatoua, hein, dans campement, île du Salou. 2 h de Dakar, 30 km de Joal Fadjout. La piscine est 14 m 30 sur 6 m 20 en profondeur maximum 1 m 50 Nous avons un salon qui bir en train de table à manger. Le bâtiment est de 4 chambres climatisées avec leur salle de bain. Si vous avez un balade en bateau, vous allez venir au village de Ndeye ñu yóbbu la ci biir mangrove yi yóbbu la île du Saloum découvrir ay ay ay ay mystères yoo xam ne mosoo koo gis. aca final le 9 octobre 2022 Arena Adrien Senghor Assane Dione Njogoloor ak Boudaay Bundu Ñaan Assane moo nu woon gannaaw Boudaay moom lañ jàkkaarloo wala moom mooy borom démbul xonq li ñuy bëgg a mbokk internet yi kontaan si ñëpp bëgg waa Kobangoy séeréer Kobangoy un Kobangoy deux waa Fadial Samba Jam Diesel waa Babou Kër Samba Jam la Samba wan Ndiédiène waa commune de Fimela waa Diofior kenn déggoo lool Ndiaye moo ñu woon gannaaw. docteur sama fay ziar naa la borom les pervers. at bi baax wax ak ñoom sifflé waat na. ko soow ziar naa la mu daay eh, Assane jàpp na ko ndombo